asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jullit yi mbokki taalibe yi ñi nga am mbégte mu rëy di leen nuyu ci barab bu tedd bi ñu leen daan nuyoo ci waxtu wi muy jumaay Touba ngir waajal màggalu Touba 18 safar 1442 hijriya tolloo ak njëlbeenuk mois de euh, octobre 5 wala lu ko wala du ko sori octobre cinq wala 6 octobre 2021 euh, daayira mu xaddamatul xidma fas yéenee taxawee liggéey bu am solo bu mu daan taxawee ci jumaa ji daayira bi nag nii la fas yéenee doxale ab liggéeyam li ko dale benn fanu safar dana tàmbali opération set setal yi nga xam ne moom la baaxoo def ci jumaa ji ci loolu dana bale jumaa ji ba mu set wecc ci ruq yëpp kaw ak suuf diggante terrasse yi ak fépp euh, raxas ko ba mu set defaraat lépp lu fi yàqu ci ay jumtukaay muy piil yu yàqu muy ventilateur yu yàqu mbaa beneen matériel bu mu mën a doon te yàqu te ñu war ko defaraat yokkat ay jumtukaay yi nga xam ne moom la daan jëfandikoo ci wàllu fegu ndax xam nga ne ren màggal gi dafa tombe ak jamono joo xam ne dafa am lu xew ci àdduna bi te mooy Covid 19. loolu moo tax li mu daan jëfandikoo ci wàllu fegu te mooy prévention fas na ko yéenee yokk bu baax a baax a baax a baax loola bokk na ci pompe yi nga xam ne daana ko def xam ngeen ni baaxoo nañ di désinfecté jumaa ji euh, ci ay bit ñaari fan yu nekk bu dara xewul nii ci jamono Covid bi daanañ ko def benn fan waaye fii mu ne ñu ngi koy def par ñaari fan. bu dee ajjuma it fu ñu jullee ba noppi danañ désinfecté barab bi waaye loolu dispositif yooyu nag dañ koy yokk gën koy yaatal ci biir màggal gi danañ ci ñëw ci kanam tuuti euh, jumtukaay yooyu itam danañ ko wutal ay danañ wut jumtukaay yu doy yoo xam ne day nekk ci li wër jumaa ji lépp muy bunt yépp loolu moo tax danañu fi nekk benn fanu safar ba treize safar di liggéey ci liggéey boobu ci jumtukaay yi ak setal gi ak lépp loo xam ne barab bi laaj na ko le treize safar nag bu xasee ba jot le quatorze safar ci la ñuy tàmbali nag liggéeyu màggal gi bu boobaa dana am permanence su cinq cent personnes yoo xam ne dañuy nekk ci jumaa ji ak li ko wër ngir saytu ndigal li nga xam ne sëriñ bi joxe na ko ci jumaa ji ñu war koo taxawee euh, juróomi téeméer yooyu itam ni ñuy sàmmee jumaa ji ni la sàmmoo itam penc mi nga xam ne moo wër jumaa ji ni la ñuy sàmmoo itam armeel yi nga xam ne moo nekk ci kanamu jumaa ji nit ki nga xam ne armeel yi baqiyan yi itam noonu lay amee personnel bu fa nekk boo xam ne ñoomit it dañuy sàmmonteeg yi nga xam ne tëral nañ ko ngir nit ñi war doxe rawat na ci biir màggal gi yooyu nag bokk na ca julli gu ne bunt jumaa ji dana am ñu fiy taxaw danañ fi teg ay bërigo yoo xam ne ngir raxasukaay lay doon kuy dugg ku nekk dana raxasu dana amit ku taxaw ci wetam yor sel ngir ku raxasuwul wala ku raxasu ba bi te bëgg a laal sel itam ñu defal ko sel mu laal dana amit ku taxaw di contrôler masque yi ñooñu itam masque rek mooy nekk seen taxawaay ñi nga xam ne ndox mi rek moo nekk seen taxawaay ndox mi rek la ñuy sàmm bu jeexee ñu duyaat ko ñi nga xam ne sel rek la ñuy sàmm la ñuy yor ñoom laal sel rek mooy nekk seen yitte ku agsi danañ fexe ba ni nga noo mën a laale sel ñi nga xam ne masque rek mooy seen liggéey itam masque rek la ñuy xool ñoom amuñu soxla ci yeneen yi ci des waaye masque rek la ñuy xool ku yor masque ñu bàyyi la nga dugg ku yorul masque wala sa masque yàq wala nangam ñu changer la ko joxaat la masque ni ñu ko gisee jumaa ji ci sunu ginnaaw ñun ñëpp ñu ngi koy gis am na ay barab yu ñu mandargaal mandarga yooyu danañ ko gën a yeesalaat ba mu gën a fés ku agsi fu am mandarga deesu fa toog fi ñu mandargaalu dara new fa mooy wane ne fu ñu war a toog la nga toog fa mooy fii nga xam ne koleesu fa dara loolu mooy euh, tàmbaliwaayu liggéey bi li nga xam ne nag moom la ñuy ñaan képp kuy ñëw mu sàmmoonte ak moom mooy buy ñëw na takk masque bu agsee na raxasu mbaamu laal sel bu duggee na dugg fi ñu ko na toog fi ñu ko toogloo ci sàppe yi bu ñuy dugg itam nañu toppante maanaam nañu rang rang boo xam ne diggante ku nekk ak moroom ja dana am espace loolu it ñu ngi koy sàkku ci julli yi ñu ngi koy sàkku ci siyaara yi bu dee siyaara yi nag danañ teg ay euh, nappee autocollant yoo xam ne danañu ci xàmmee fi nit ki war a taxaw nga xam ne kenn ko nekk boo egsee ci sa kanam da nga gis ay tànk yu collé ci sa kanam nga xam ne fii tànk yi nekk fii la nit ki war a taxaw euh, bu ñuy génn itam ñu bañ a raj raj rajloo génnaat ndànk-ndànk comme ni nga xam ne noonu lañ duggee woon loolu mooy sart yi nga xam ne moom la ñuy sa sart ci képp koo xam ne day ñëw bu dee barabu siyaare bu dee julli bu ñu jullee ba noppi rek cinq minutes ñu ngi koy dañ koy ñaan mu génn ndax dañuy war a barewaat barab bi toppatoowaat ko ndax jamono moo ko laaj fi mu toll nii bu dee siyaara nag du nangu ko toog moom bu duggee rek day ziyaara génn jàll may moroom mu ñëw ngir sàmmanteeg ndigal li nag bis bu ne danañu pomp jumaa ji ñaari yoon benn ci suba gi benn ci ngoon suba ak ngoon aspiré tapis yi ñaari yoon moom itam suba ak ngoon dana am mbooloo mu nekk itam ci rangi siyaare yi comme ni ñu ko waxee woon di leen di sàkku yooyu nga xam ne moom lañ sàmm lañ leen ñaanoon ñu sàmmanteek moom te mooy soreyante yi ak itam di dox bañ a taxaw kuy dugg rek bala ngaa egsi bala ngaa dugg ci biir barab bi nga tàmbalee ña jàng say ñaan yi nga xam ne moom ngay siyaara nga xam ne booy dox di romb ndànk bala ngay génn ci bunt ba ca des fekk sa ñaan sotti ndax toogaay yi day indi jafe-jafe yi ah, ci loolu nag liggéey bi day soxlawoo ay jumtukaay yu bari xamees na ko bokk na ca comme ni ñu ko waxee léegi ginnaaw dañoo bëgg ñëpp di raxasu dana laaj ay defukaayu ndox yu bari bunt jumaa ji am na lu toll ñaar fukki bunt ak juróom-ñaar 27 portes porte bu nekk fas nañu fa yéenee teg bërigub 200 litres boo xam ne dañ koy raxasoo danañu faggu itam ay réservoir yoo xam ne day mottali day remplir ndox mi su jeexee ak ay nit ñoo xam ne itam duy ko rek li ñuy liggéey kon layu raxasu moom yaakaar naa ne mën naa euh, ñàkk am sel bi itam ni ñu ko waxee woon léegi danañu fexe ba mu doy sëkk incha allahu taala ba ki ci ci kanamu ki yor ndox mi dana fa am ku taxaw koo xam ne wala ñu taxaw ñoo xam ne loolu rek lañuy ñuy kon sel moomu itam danañ ci soxla quantité bu baree baree baree bare lu néew néew néew néew dana jege euh, juróomi téeméeri carton eau de javel itam danañ ko def ci ndox mi danañ ko itam jëfandikoo ci barab bi di ko raxase barab bi moom itam quantité bu bari lañ ci fas yéene jëfandikoo comme ni nga xam ne noonu lañ ko jëfandikoo ci Covid bi bi mu commencé ba léegi. naka noonu saabu itam moom it dañ koy jëfandikoo lu baree baree baree bare ci ci ci ci barab bi am na ay produits itam yoo xam ne produits yu ñuy désinfecté la moom itam yu seer la yoo xam ne service d'hygiène ñoo ñu ko recommandé waaye ay façon lay doon ndax dañoo wax ne boo pompé benn bi bu subaa nga pompaat ko boo léegi nga pompaat ko day dem ba mu yàgg day néew doole tax na fag dañuy fas yéene faggu ñaar ba ñett ba ñeenti xeet yoo xam ne duñu bokk boo jëlee bii suba jël bii ngoon bu ëllëgee nga jël bee ci suba gi jëlaat bee ci ngoon gi awante ko ngir mu gën a nekk lu amal njariñ bareb bi ni ñu ko defee itam ci bunt jumaa ji mbedd yi nga xam ne ñoo dugg ci pénc bi itam waajal nañ ko ngir teg fi moom itam ay raxasukaay ngir ko dugg raxasu waaye jëmmi penc bi ci boppam am na ay yu ñu fi tere woon naka jekk muy lu mel ne njaay mi muy ñu mel ni ñi daan ñi nga xam ne dañ daan def ay géew di dajale nit ñi di wax wala yu mel noonu yooyu yëpp ba ci wecceet waak bundu xataal mu ci yalwaan meeg yëpp dañ ko daan tere waaye bii yoon nag am na yeneen yu ci ko ngir gën a yaatal penc mi ci tolluwaayu jamono tax na baas yi nga xam ne dafa daan nekk ci penc mi dañ koy génne penc mi plateau yi nga xam ne itam sunu bokk journaliste si ñoo ko def te mu daan am ay nit ñuy taxaw ci ginnaaw di seetaan ak yu mel noonu yooyu dañ koy tuxal ci yeneen barab yoo xam ne du nekk ci mbedd mi tey ba mbooloo mi di ci man di taxaw muy indi ab raj raj loo foofu ñu ngi ciy profité di ñaan journaliste yi nga xam ne ñooy ñëw ci jumaa ji ku ci egsi te bëgg a def reportage nga jaar ci bureau bi ci cellule de communication bu jumaa ji wax leen la nga bëgg ñu defal la autorisation nga dem kenn du la am empêché ci dara bu fekkente ne danga nga yor drone itam na nga ñëw ba ci ñoom nga leer nga wax ak ñoom bu mënee jóg danañ la jox ndigal nga mën ko yëkkati ndax xam nga ni jamono ji ñu toll jamono ji ñu toll xaw naa jafe te drone bi itam ñu bari miinuñ ko bu ngeen fàttali ko am na fi at moo xam ne benn drone bu fi jógoon boo xam ne indi woon na fi bousculade bu xaw a doy waar te loolu moo tax fu mbooloo yi daje bala ñu fay dawal drone il faut ñu waxtaani ko seet yan barab lañ koy mën a yëkkatee ak yan barab lañ ko doon mën a yëkkatee loolu moo tax ñi ngi sàkk képp koo xam ne ñëw na te yor drone boo xam ne bëgg na cee filmer mu jaar ci bureau bi waxtaan ak ñoom danañ ko teg ci yoon woo xam ne dana mën a def liggéeyam na mu ko bëggee te du am benn jafe-jafe nii nga xam ne loolu lañuy ñuy ci jumaa ji itam noonu la ñuy liggéeyee ci armeel yi ci kanam moom it buntu buntu armeel yi waxuma buntu barab yi waaye buntu armeel yi dana am ñu fa nekk ñoo xam ne liggéey bii ñuy liggéey ci jumaa ji ñoom it noonu la ñuy liggéeyee foofu su ma waxee jumaa ji nag lii ma wax lépp ni mu concerné jumaa ji ci salle bi ñuy jullee noonu la concerné barab bu mag bi ak boolem barab yi nga xam ne ñoo nekk ci biir miiru jumaa ji ñun ñëpp ñoo fas yéene ànd liggéey boobu taxawu ko ci ndigalul sëriñ bi ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi sàkkoo ci noonu euh, ci loolu li wër pénc mi itam ñu ngi ciy bàyyiloo xel lu demee ne oto oto yu mag yëpp sax la ñuy wax loolu yaakaar naa sëriñ bi sàkk woon na ko ci kilifa yi ba arrêté bi génn na jàpp naa ne ci kanam tuuti pano yi dana taxaw waaye rawatina nag oto yi nga xam ne ñooy sëf sobe lu mel ne oto vidange yi ak sareet yi ak jaaykat yi yooyu moom ñu ngi leen di moytuloo penc mi bu baax a baax a baax ndax sëriñ bi wax na ne nañu koy teggi ngir wormaal ko waaye itam nag jur gi nga xam ne dañ koy jiital ñuy dem xam ngeen ne su màggal gi jub barab bi bépp dañ koy seetal moom set wecc di ko waajale màggal gi di ko teeroo gan ñi waaye barab bi itam nag dafa nekk barab boo xam ne barab bu murit yëpp warmal la ñuy war di sàmmonte ak warma jooju te bàyyi ma ku nekk xam ne ne bàyyi ma la suñu jiitalee ak jur mu jaar fi danañu fi bàyyi lu bari loo xam ne luy taqalaat barab bi lay doon lu koy ñaawaraat lay doon te dana indiwaat beneen coono boo xamante ne bii wax dëgg yàlla méngoowul ak ab taalibe di ko def ci barab bii ñu nekk loolu tax na ñuy ñaan képp koo xam ne da jiital ak jur muy traversé di dem nga jaarale ko ci yeneen mbedd yi nga xam ne nekkul yi sës ci jumaa ji euh, ci biir loolu itam waajal nañ fii itam meneen mbooloo moo xam ne dañuy yëngu moom itam ci wàllu wér-gu-yaram ñooñu bu ñu ñëwee lay nekk seen yitte mooy dox ci biir jumaa ji ak li ko wër pénc bi di bàyyi xel nit ñi képp koo xam ne yëg na dara ci yaramam seetlu nañ ne kii yëg na dara ci yaramam walla daanu na wala leneen gaar na ko bu boobaa ñoom dañ koy jël yóbbu ko ci am na benn infirmerie infirmerie bu nekk ci biir jumaa ji dana am ay docteurs yu fa nekk ñoom it danañ équipé wu ci ay balankaar yoo xam ne dañ ciy jëlee nit ñi ak euh, jumtukaay yoo xam ne danañ ci mën a def paj mu njëkk mi ci li biir jumaa ji su laajee évacuer ñu dal ko évacuer fekk am na ay ambulance yoo xam ne taxawaloon nañ leen ci li wër jumaa ji ni ngeen ko déggee itam Sëriñ Basiir Mbàkke leeral ko ci waxtaan bi nga xam ne moom lañ njëkkoon a waxtaan loolu itam ñu ngi ciy bàyyiloo waat xel nit ñi mooy ci siyaare bi rang gi dangay gis ñoo xam ne dañuy baaxoo bu ñuy ñëw di yëkkati ay kàddu ca kaw di sikkar mbaa ñuy wax kàddu yoo xam ne dëgg la kàddu yi ñuy wax baax na waaye nag méngoowul ak barab bi barab bi lim mu lim laaj mooy ab yar ay teggin ak dal ak ne cell ne tek ba siyaara ba noppi ba génn ba dem du am benn coow ndax xam nga ne barab bi bara bu teewlu la nit ñi dañuy ñëw àndaale seen i yitte di ñaan di bàyyi xel seen boroom di bàyyi xel Sëriñ Tuubaa mi fi tëdd ñooñu nag wax dëgg yàlla kenn ku nekk war naa dal moom ci boppam ngir dalal moroomam ba li mu bëgg a ñaan ak li nga xam ne moom lu bëgg a teewlu lépp mu man ko kon daal waajtaay wi mu ngi tàmbalee ci benn fanub safar incha allahu dana dem ba màggal ba am ba bisub màggal gi delsi lépp danañu nekk ci jumaa ji di ko taxawu di ko saytu bu baax a baax a baax mooy li ci njëkk mooy cet gi wàllu cet set l'islam daf ko santaane ba bis bu yàlla nit ki bu juddoo la l'islam di njëkk santaane ci moom mooy ñu sang ko bu génnee àdduna la l'islam di njëkk a mujj santaane ci moom mooy ñu sang ko bi muy dund itam lislaam sant na ko lu néew néew néew néew bés bi set na jàpp juróomi yoon sant na ko itam ci ay diggante yoo xam ne day sangu lu mel ne bu amee janaba lu mel ne ajjuma lu mel ne bisi ayit yi nga xam ne day am lu ci nekk lislaam da lay wax ne nga sangu loolu lépp ak cat la ci jublu ndax cat dafa bokk ci ngëm yàlla wàllu cat googu nag dañuy ñaan yàlla di ñaan bokki taalibe bi itam su tawat ji demee ba jóge fii itam mu nekk aada ju rafet joo xam ne bàyyi na ko ci nun ñuy sàmmoonte ak moom ba bu ñu jógatee jëm ci fu mbooloo nekk rawatina ci barab yu mel nii ñu saxoo di raxasu fonk ko lool ngir dana euh, dindi ab wàllante ci ay jàngoro waaye itam nag dana jariñ lu baree baree baree bare yeneen yi nga xam ne nag dafa laal xëy na wàllu wér-gu-yaram nga xam ne xëy na contexte bi moo ko moo ko waraloon mën naa am yooyu danañ ko bàyyi waaye am na ci yoo xam ne moom dañuy gën a sàmmonte moom yi nga xam ne dafa laal wàllu wér-gu-yaram mooy lu demee ne sàppe yu sore yi sàppe yu sore yi xam ngeen ne lislaam dafa santaane bu ñuy julli sàppe yi sësaloo loolu moom contexte bi moo ko indi suñ demoon ba contexte bi jeex incha allahu dañuy wéyalaat na nga xam ne noonu lañ daan jullee wéyalaat nañ daan siyaaree du bàyyi nit ñi ñuy toog siyaaree nañ ko bëggee ak yëpp waaye nag fii ak lii ngi bi am moom recommandation yi nga xam ne waa kër docteur jox nañ ñu ko te ñu doxal ko day nekk warugar ci sunu ñun ndax ni ko sëñ Basiru Mbàkke waxe woon léegi rek fasalu ahla zikri ci ci waxtu bi muy woote fasalu ahla zikri in kuntum laa taalamoon lu ngeen xamul lu ne laaj leen te déglu ña ko xam luñ leen ca wax ngeen doyloo ko te jëfe ko te noonu la ko kër docteur sàkkoo ci noonu kon nag ad daruraatu tubiixul mahzuraat bu lor bu bu lu demee nii ñëwee lépp loo xam ne xëy na soppi ga du yàq dara ci diine walla bokk soppi ga mooy gën ñàkk gaa soppi bu boobaa lislaam daf lay may nga mën koo soppi ba contexte boobu jeex loolu li ñu ci jublu mooy lu demee ne julli yi ak yu ni demee yooyu moom su ko su Covid bi jàllee dañ koy delloowaat fa nga xam ne fa la nekkoon. waaw waaw dafa wax dafa laaj ne sëñ bi wax na ne soxla na lu toll ci juróomi million yi masque ñu wax ñun ñu ne danañ liggéey loolu mat juróomi téeméeri nit. am ay jumtukaay yoo xam ne dañ ko soxla jumtukaay yooyu nan la ñu war a def ba am ko loolu jumtukaay yi ni ñu daan def ba am ko rek la ñuy def ba am ko loolu mooy tàllal loxo mboolem taalibe Sëriñ Tuubaa yi fu ñu mën a nekk kenn ku nekk bàyyi xel ne barab bii mooy jubluwaay ni ko sëriñ Basiir waxee ci woote bi mooy jubluwaay ñi ëpp ci ñi ñëw di màggal si néew na koy ñëw màggal si ba génn delluwaat te ñëwul ci jumaa ji kon nañu xam ne jumtukaay yi nga xam ne moom la ñuy liggéey ci jumaa ji noonu lu mën a ñàkk waaye nag murid yi ñoo ko war a fàggu su boobaa ñi ngi tàllal loxo murid yëpp ci jumtukaay yi ñu wax dañ ko tàmbalee nag ci suñu bopp kenn ku nekk ci noonu dana am lu mu sasoo génne ko joxe waaye loola nag du doon dara ci li nga xam ne moom lañ soxla tax na ñi ngi ñaan boolem ab taalibe fu mu nekk itam mu bàyyi xel ne loolu luñ soxla la ci juróomi millions yi masques yooyu nga wax lu néew néew néew néew juróomi téeméeri junni yi masques ñun bokkoon na ci lañ waajal fii muy cinq cent mille masques yoo xam ne moom jumaa ji rek ko tax a jóg bokkul ak euh, alcosel yi bokkul ak savon yi bokkul ak aspirateur yi ñu war a dolli bokkul ak euh, euh, produit désinfectant yi nga xam ne lu seer seer lay jar dañ di ci utiliser lu bari bokkul ak itam yeneen jumtukaay yi nga xam ne dañ ko fi soxla bokkul ak itam liy yor liy yor mbooloo mi fi nekk di leen dundal fan yi ñu fi nekk yooyu yëpp ak gan ñi nga xam ne dañuy ñëwaat di dalli ko ci ñoom xam ngeen dana am détachement police dana am détachement. Kër Docteur dana am détachement sapeur pompier dana am détachement croix rouge ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne dañuy ñëwaat nekk si waat fii te ñoo ñëpp ñu war leen yor di leen toppatoo loolu lépp nag dana laaj ay moyens yu bari ni nga xam ne nan nga ko waxee sëriñ bi tax na loolu nag dañ koy séddoo ak murit yëpp xëy na comité d'organisation bi ci la bokk waaye benn partenaire la ci waaye partenaire yi dëgg-dëgg daal mooy taalibe Sëriñ Tuubaa yëpp fii dafa Euh, euh, waa euh, organe de presse yi nga xam ne dañuy ñëw fii dañuy soxla ñu am autorisation ngir mën a filmer wala ñu war a def seen reportage ci jumaa ji muy laaj ndax loolu bu ñu ko xasee am benn yoon day doon toujours wala benn yoon boobu lay doon yoon wuñ ñëw wu ne ku ñëw ku ne yoon wa nga ñëw da nga fay jaar ñu jox la ndigal nga dem ngir da am ñooy dajal ci biti ñoo xam ne këyit wa nga joroon démb duñ sàmmonteeg moom ndax la nga doon dox démb mën naa bañ a bokk ak li ngay dox tey man ngaa ñëwoon démb pour couvrir julli gi tey nga ñëw pour couvrir siyaara bi man ngaa ñëwoon démb pour couvrir ci sow bi tey nga ñëw pour def reportage ca kanam te xëy na lay walaabal ci kanam mën naa bañ a walaabal ci gannaaw lay walaabal ci biir saalu jullikaay bi mën naa bañ a walaabal ci siyaarewukaay ba ak yu ni demee moo tax boo ñëwee da ngay wax li nga soxla ñu wax la na nga xam ne mën nga ko daan defee ba mu egg te doo am benn jafe-jafe su ngeen ci juboo ñu jox la autorisation nga dem koo mën a dajal ci biir jumaa ji boo ko waxee joxee autorisation boobu mu bàyyi la nga def la a def waaw bureau bi moom du tëju benn yoon te fa fa bureau ba nekk bokkul ci fi xat lool bokkul ci fi xat lool boo xasee dugg ci jumaa ji rek dam fa day yomb ni nga xase ba ñëw ba pour mën a def film boo xase ba dugg foofu moom day yomb ndax buntu ba amul raj la doon du bokkul ak barabu siyaarukaay yi weneen yoon la am boo xam ne dem fa yomb na loolu benn jafe-jafe moom